ñak gis sen bop ci bir PDS waaye sonn lol ci xartum ak ñaari téeméer yi len dan jox mo waral ñi wan ginau Cheikh Mbacke bar dulli jublu soxna mam Sey Mbacke bu Aper ab ndaje amoon ci xayre de waye ñi nga xamni ñom lañ fi jàppale ñom yatu xakaay lañu def heure bu ñu nu soxla rek jël ñu utiliser ni bañu paré rek sanni ñu. ci ginaaw Cheikh Mbacke bar dulli ñu fas yene nag bayilo lepp ndax dañu dan def utiliser bu ñu nu soxla jël ñu. def nu yetu xeexukaay bu seeni soxla matee ñi fànni fàtte ñu amul lenn luñ def fii ci Daaru Manaan loo xëy luñ fi taxawal ko ci xam na ma ko wax luñ la fi defal ah jógee ci kujj gi ñëw fas yéen a ak sama maam say mi jàppale ko ci liggéey bi muy liggéeyal président Macky Sall. su weesoo ñi nga xam ne ci parti démocratique sénégalais lañu féete woon ñeneen ñi si des moom maitre maître Madické Niang lan doon àndal. man maa nekkoon ci Madické Niang firnde ji mu wane. ma am ko dox jéego ba ba ne ci seen biir ñëw ba ci man expliqué ma tamu doy ma lool moo tax te daan ànd ci ñoo xamante ni mbubu xaartum ak ñaar téeméer lañ ma daan utiliser maak sama gàngoor te loolu amatuluñ njëriñ. réew mi fi mu toll boo xoolee moom li mu def nii lu ñu doolee rafetlu lay doon ndax jamono ji metti na lool dem na ba fi ne nii borom kër yi nga xalaat ay tabaski. di xalaat luñu wara yobbu a yóbbu seenu njaboot kon bu soxna ci ëndé lu melni tay lu bon bon bon boko jëlé nga mën ko duggal ci xari wala nga duggal ko ci benen business yalla mëna la sutural bu tabaski ñëwé nga am lo yobbu sa njabot lo rek dafa doy jaamu yalla soxna mam sey Mbàkke ci ndaji bu doon amal ci bobu gox dala jamm jox leen i financement way dig leen ay machine fi ci Xayrida c'est ce ben responsable bu nekkoon PDF ñu ko wax señ Talla mu ñew sama kër fekk waxtaan ak man dafa bëgg ñoo jàppale ñu ñu ànd liggéey président Macky Sall ma rafetlu ko lool nag ñëw tey ji seet si ko indaale ko ay financement yu jigéen ñi mën a liggéey tey jii ana am na député boo xam daa waxoon ne day may salaire am jiite fi PDS anam ban ko falee ba léegi anam mu ngi tëdd Dakar kii gis ngeen dégg ko mbas mi ñëw Touba ñëpp jóg ñu fay indi ay masques ñu ay sel ñu de ay ay dund di jàppale nit ñi kenn gis ngeen dégg ko. ma bëgg a wax ne waa population Touba ñu xëpp seen i bët ak département Mbacké di xool baax ñun ñuy jàppal ci ci ñu ni ñu ñu ñu hôtel ndax hôtel nit xëy gisatoo ko déggatoo ko boo soxla itis bu noppee sànni la loo amul benn sens tey jii nag ma jóg jàppale jigéen ñi ndax damaa sonn ci bu xatuma ñaar téeméer bu mu def de Mbacké ndax euh, danoo waxoon ne président Macky Sall jàppale kenn tey jii bi mettee waakar mu suñu taxaw ay waakar mu taxaw tey jii ci mbas mi di leen ndax fii jëf fii réew tool toll ku la jàppaliwul rek bu jàll jël nga koy soxlaati te président Macky Sall li waxoon bi nga tey ñu ngi koy def centre bu mag hôpital Matlaboul Fawzeyni ay milliards pour mbas mi 30 da koy tëddi mi ngi ñu def na ko hôpital mag bi ne ci Touba yenn yenn yu bari yoo xam ne ni jar na jàppale ko may wax sama mbokk tamit ne sédd a dund bi nga xam ne président ñu na ko ci département Mbacké dund bu doy sëkk bëgg nag sama mbokk yi ma bokkal parti bi ñëpp ñu wàññi groupe WhatsApp bi te taxaw génn ci askan wi waxtaan askan wi xool seen jafe-jafe ñu jàppale leen. financement bii nii moom xam naa bu noppee war naa ay 10 millions. noonu laay ko ne taalal naa sama loxo waa PDS gépp ndax ñu bari ñu ngi may woo dima taalal la opposant yi ñooñu laa taal loxo wala ñu ñëwaat jàppale si ñu. ndax xam na ne fii ñu nekk moom parti bi rek moo fi la dañ parti financement yi dawee di continuer des neen projet yu bari sax yoo xam ne maa koy séentu comme mel ne usine yi defar saabu ndax seen loxo yi loolu jeex na parce que naa andi ay matuwaay yu bari xam ne incha allah na indi Touba am na machine xam ne courant ni koy courant lay dox tamit ñu xolli gerte di jaaya nga xam ne xolli gerte seen loxo metti na ni financement yi ñu yooyu noonu lay ñëwee damay mis ñim si élection ndax élection waa nag fii laa ko mën a commencé jafe-jafe fii Sénégal tool ko mën a commencé jëm kaw ndax koo jàppale fi jamono yi ñu toll koo jàppale ci mbas mi ci jafe naa bëgg nit ñi daal damaa bëgg a ñi daal ndax fu ñu sédd na fu dul te kenn déggu coow kon nag fii danoo dal tey rus war a rus sëñ bi xool ci bi ndax sëñ mooy deux cent millions joxe te loolu sëñ bi def ñu nga mën a koy def kon nag noonu rus sëñ bi rus jëm jëkk bi bàyyi coow yi ak wax ji buñ kenn ku lañ ci war am da nga ko ci am ndax duñ bu doon sëkk di pas andi andi ko ci ben département département bi Touba mu jëppale té département Mbacké moo jëppale kon nag bu ñu teyee te bàyyi xuloo beeg saaga wax ji rek ñu ko sédu ngi sédal amna ño xam bi ni no bindu ci woon da da no duñu dundu bi du léna ñu bindu bindu ci wo di kon na dundu bu ñëw ba dundu bu ñëw tey nga bindu loolu ta nek bu ndax bu nek tek tam amna lu ndax bu séddale pare li wa bu familial leen di sen dundu jox leen ko bu li jamm lu ñëwaat kon nañ bàyyi saaga bu ndaw dal ñu pem kenn ko ram na ko ci am